jërë ngeen jëf euh, mbokk yi topp fii ci Info 7 TV ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di ñëw ak yéen nag ci conférence de presse bi daal Aliou Cissé entraîneur équipe nationale euh, bu Sénégal mi ngi ko doon def lépp nag euh, jublu rek ci wàccaayu match bi Sénégal am ak yandaal moom moo di rek Égypte aju ci wàllu match barrage éliminatoire coupe du monde te xam ngeen ne Égypte nag dafa gagné woon te match aller ba 1 bi à 0 Aliou Cissé nag bi mu ñëwee rek daal di rek doo rek rek li nga xam ci daal moom la ñu rek séentu ci match suba bi mu ne nag. xam na ni de équipe am bii di Sénégal moom dafa manqué bu baax baax lii di efficacité euh, par rapport ak euh, bu ñu xoolee li nga daal moom lay dugal ci ay bii rawatina nag euh, ni ñuy exploité lii di bal arrêt yi loolu nag daal mu ne taxul mu baax waaye biti Lions yi daanaka mu ne ñu dugaluñu ko loolu jafe-jafe bu njëkk la kii di Abdou Diallo muy défenseur international sénégalais bi boobu nag dafa forfait moom dafa gaañu woon ci match aller ba ba tax na match retour bi du daal di rek mën a football waaye li ci groupe bi nag mu ne ñëpp pare nañ pour jublu ci match suba bi ne nag it daal am nañ possibilité daal rek euh, dugg ci l'histoire équipe euh, nationale bu Sénégal ci seen stade bu bees boobu di stade bu Abdoulaye Wade mu ne nag it daañu rek euh, def lépp loo xam mën nañ ko pour daal di dugal ay bit mu ne nag waxul ne dinañ daal di yokk li nga xam daal moo di attaquant yi waaye nag daañu def lépp luñ man pour mën a jël ay bit daal di koy dugal ci boobu lay jogante parce que xam nañ ne loolu rek moo leen ci mën a génnee mu ne il faut que match bi nga xam daal moom la ñu am suba ñu teel cee dugg moom Aliou Cissé nag te xam na ne daal am nañu matuwaayu mën a teel dugg ci boobu la jogante nee nag suñu euh, ennemi première mooy temps bi parce que temps bi duñu xaar waaye nag nekk na match boo xam si ne waruñu koo yàkkamtee mu ne nag bëgg nañu li nga daal moo di motivation bi ñu jàppale leen parce que xam ne na wuñu ci match bi mu ne daañ ci mën a génn incha mu ne qualification bi daal am na ci njortu ne lu mën a nekk suba la moom Aliou Cissé ba léegi rek daal dina ñëw di xam ne ne équipe bu mag bu am doole rawatina boo xam si nag moom euh, bëriwul ndax dañoo am doole lool ci wàllu défense bi di Égypte mu ne nag euh, critique yi de bëri lool waaye nag noonu habité nañu di dégg ay critique waaye nag am nañ confiance ni daal daañ génn ci match suba bi mu ne nag euh, scénario bi nga xam si moom la ñu gën daal moom mooy ah teel dugal rek parce que da sax loo xam si mën naa xew ci match bi waaye li bëgg daal mooy teel dugg ci match bi waaye teel a dugal euh, but pour daal ci mën a di bës euh, cloche bi tey abone di teel a mën a jot ci mboolem information yi nga xam daal mi ngi jàll ci seen euh, seen boobu di Info 7 TV jaa ngeen jëf.